kon ñoo ngi ziar ñep di fas diksi ci li nga xamanteni moy bilan bi bilan bi nak euh, sunu responsable seigne Ibrahima Kayta mom mo koy def ànd ko ak coordinateur travaux yi sëñ Modou Mamoun Mboub ak ñun ñi di conducteur des travaux nek fi si wetam lolu duñ def kon lu jox seigne Ibrahima mu dikk si ndax bilan bi moom am na données yi nga xamante ni mooy données financier yi données techniques yi tamit jox nañ ko si comme dañuy njëkk a présenter bilan bi buñ noppee cordinateur bi dana si ñëw bu amee yeneen aspect technique techniciens yi daal si dikkaat gën kaa farañ fàccee bismillah barki serigne touba Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñoo ñu mbollem mbooleem ñi teew ci assemblée générale bu mag bi nga xam direction générale bu isbu Tarqiyyah woote nako kon tay di gaaw dëppook juroom ñetti fan ci wéru janvier 2022 fi ci complexe bu mag bi nga xam serigne sëriñ Muntaxa xalif général des Mourides moo ko naal euh, muy liggéey bu mag bu jëm ci jëmmal bâtiment yi nekk ci biir complex universitaire yi loolu nag ginnaaw nuyoo bi ak cant gi ñu am ndigal ci gaaral leen li nga xam ne mooy liggéey bi na mu tëddee ci bi ndigal li jibee ba fii ñu yegg si kon ci bésub tey bi ginnaaw loolu it dana am ñaareelu pàcc bi nga xam ne mu ngi jëm ci li nga xam ne moo des ci liggéey bi ak pas bi nga xam ne moom lañu am ci songe ko kon ñuy sant bu baax ci teewaay bi di ñaan it xëy na ñu dolli teewlu dana tax ñu gën a xam liggéey bi fa mu dalee ba fi mu yegg si kenn ku ci nekk mën cee gis boppam bu baax a baax kon liggéeyu kër xaside yi ñu xam ne jëmmi liggéey bi mu ngi tàmbale kon décembre deux mille dix-neuf ba fi ñuy waxee tolloog ñaar fukki weer ak ñeent liggéey bi it ñu ngi ko jot ci ndigalub xalif général des mourides sëñ Xambake kon ku ne dégg na kàddu yi nga xam ne moo ñu fi jiitu li nga xam ne kon moo ci aju waaye li am solo mooy bu ñu waxee kër xasida yi du mën a ñàkk ñu delloo siwaat tuuti ci wàllu historique liggéey bi fii mi amee lu ko waral ndax liggéey la boo xam ne sëriñ bi ci boppam ku ne gis na ko ci vidéo yi mu wax ne ginnaaw bi muy laaj ci fan la ko war a def euh, ñim ci waxtaanal dëppoo nañu ak moom ci ñu amal ko fii ci biir complexe bi kon li ñuy njëkk teg mooy complexe bii nga xam ne kon fi la liggéey bi amee ñu xam ne kon Serigne Mountakha moo ko naal sëriñ Cheikh Bachirou Mbacké di maître d'ouvrage délégué bi coordinateur bi di sëñ Mame Thierno Mbacké mu sëñ Moustapha Bachirou liggéey bii nag ñu fi amal Hizbut Tarqiyyah ginnaaw bi mu jotee ndigal li taxawaayu jëmmal fi Serigne bi maître d'œuvre Hizbut Tarqiyyah moo ko ànd ak ñaar cabinet muy Canal Archi ak Archi Athènes bu dee ci wàllu entreprise it Hizbut Tarqiyyah am na ci biiram ay entreprise yoo xam ne ñoo ñëw ànd ak yeneen compétence ci wàllu corps ak corps ngir mbooleem liggéey yi nga xam ne ñu ko fi war a liggéey yépp ñu liggéey kon plan bii nga xam ne kon danañ leen ko indil danañ ko def ci juróomi ponk ponk bi ci njëkk mi ngi jëm ci wàllu travaux d'étude yi bi ci topp jëm ci xayma bi nga xam ne ku ne dégg na ginnaaw bi ñu tuddee quarante millions yëkkati ko ba soixante itte ji nga xam ne kon sëñaatu indi na ko ci kanamu sëriñ bi ba ñu redimensionné waat projet bi danañ dikk ci xayma gi nga xam ne bi ñu génnee foofu li ñu xaymawaat ne projet bi moom la war a jël ñu gaaral ko nit ñi kenn ku ci nekk xam ko loola nag buñ ca jógee danañu wax diggante boobu ak bésub tey lan lañ fi doxal ci wàllu liggéey muy bilan d'étape des travaux ah bu ñu jëloo la it ñi nga xam ne ñoo ko liggéey dajale ko liggéey du mën a ñàkk ñu teqantal ko ndax noonu la ñu baaxoo ci mboolem liggéey yi nga xam ne sëriñ bi dinañu ko digal lenn lu ci nekk deesut ci jaxase lu war a jëm ci lenn ñu jaxase ko ba mu jaawaloog leneen lu war a jëm ci beneen liggéey ni ko sëñ xaali jaxate waxee sànq kon ci wàllu liggéey bi danañ wax li fi daje ba liggéey fii nu toll naka la fi daje ak ñan ñoo ko fi dajale loolu it dina indi ay leeral yoo xam ne ci wàll woowu la jëm bu ñu génnee ci loolo la cay des nag mooy euh, ginnaaw bu nu waxee li ñu jote liggéey la ca des ci liggéey it def nañ ci xayma goo xam ne dañuy bëgg euh, ay nit bu ñu séqib liggéey bu am bii dayoo boo ci liggéeyee ba am foo toll dana jaadu nga dajale lépp ne leen nous liggéey a ngi waaye wownu leen ngir wax leen liggéey boo xam ne dañuy jébbale caabi ji ndax jébbale caabi ji moo ne suñu kanam diggante fiek ñuy jébbale caabi ji du mën a ñàkk kon ñu wax lees fi xayma ci li fi des ci ba kenn ku ci nekk songe ko itte ju gën a itte ji nga xam ne indi ci kon lañ ko bëgg ci étude études yi songee nañ ko ginnaaw ndigal li ndax ndigal li dikkee na ci ñun noo xam ne songee nañ ko pas-pas boo xam ne boole liggéeyu guddi ak liggéeyu bëccëg ak fépp fu compétence nekk ci wàllu xam-xam bu màcc jëm ci tabax rawatina tabax yu mag ñu koy wax batis sañaatu itteem ju njëkk jëpp da ko joyal ci fexe ba dajale leen ba li nga xam ne dige na ko ci kanamu sëriñ bi waaye dige ko ci kanamu àdduna sépp kenn ku ci nekk loo ci mën nga indi ko mu dajale loolu ngir liggéey bi tàmbali fi saa si loolu kon moonu waral ñu tàmbale études yi liggéey ko ci ñeenti weer yoo xam ne dafa ànd liggéeyu guddi ak bëccëg loola nag ah ku bàyyi xel li nga xam ne sëñ Yuusu jiital na ko suñuy kàddu ci xayma gi nga ne moom lañu xayma ci projet bi kenn ku ci nekk kon dégg na sëñ Muntaxa mu ne li ñuy xayma université bi liggéey bii bokk ci woon waaye ba nu xaymaa ba noppi ci 37 milliards dëppoo woon kon ginnaaw 37 milliards yooyu ci la liggéey bi soog a sosu 37 milliards yooyu nag euh, mi ngi war a liggéey lu tolloog 70 bâtiment ci biir université bi waaye liggéey bi bi mu ci dolli ko xaymak liggéey bi kese yegg na ci 2 milliards 600 millions nga xam ne bu dolli ko ci 37 milliards yi. dana dolli benn ci bâtiment yi waaye dana dolli deux milliards six cent millions ci wàllu xaymag ak université gi kon nag ah liggéey bii nga xam ne Serigne Mountakha moo wax ne liggéeyu boppam la bu mu bëggoon liggéeyal boppam waaye ànd kook isbu tarxiya Serigne Atou wax kàddoom yu historique yooyu ci kanamam ci ne caabi lañ la ameel loolu ku ne xam na ne enjeu bu mag la boo xam ne lu euh, taarix di jàpp la moo tax te jum kawe moo koy songu ngir jëmmal ko ci ni ko sëñ bi bëggee loola it sëriñ bi ginnaaw gi ku ne dégg na ay kàddoom yu mu wax ne cig fonkeel dëppoo nañ ci ndax nee na xasida yi jar na lu ne buñ ko defoon or walla jamaa sax nee na xasida yi jar na ko loola nag kon ku ne xam na ne amul fenn fuñ ko yemale ñu xam ne kon liggéey bu mag la bo xamne dana jël emprise bu 2000 mètres euh muy am fi ci biir université bi te fexe xamné kon liñ fi def faaw day dëppoo cadeau yoy nga xamné mom la sëriñ bi joxe itte joju nak mo wone xare bi mi laaj ngir ci ñeenti wër kessé Hizbut Tarqiyyah taxaw na taxaway bu tax lépp lu aju ci liggéey yi nga xamné dañ koy teurel jital ko ngir mëna song liggéey bi muy avant projet yek projet architectural beeg étude génie civil yek lepp fexé na ba ci ñenti wër yi ñu liggéey ko ginnaaw nak bañu génné ci ñenti wër yoy muy li dalé décembre 2019 à ba avril 2020. Oui, muy ñaar fukki wër ci lañu songu euh fi nga xamné euh moy barab bi ñu ñu daggal ci bir université loo xam ne waroon naa tax ñu def lu tax nit bu ñëwee xam ne lañu diggee ci penc ma ci kanamu sëriñ bi jàppaluñ ko itam fi ñu ko diggee rek fi saa si dañoo jóg jublu ci liggéey bi lépp lu ci aju rek Hizbut taxaw na ci fexe ba jëmmal ko ci biir loolu mbooleem étude yëpp pare na ba ñu stabiliser bu dee sous-sol bi ndax ay niveau yu bare la dañoo gas lu bare soo ko tabax

ba tax ku ko du am ben jafé jafé ci lepp lu aju ci kooku ñu mën cee taxaw nu mu waré kon rédu de chaussée bi gros œuvre premier étage bi ba ci gros œuvre paréna. deuxième étage le ngeen di gis bâtiment bi momit ci walu gros œuvre li ci aju won ci élévation paréna. na ba le ñu tollu tay ba tay bi dañoo taxaw ñaari fan ci li ñu war a liggéey mu jëm ci plancher alvéolaire yi nekk ci kanam kon liggéey la boo xam ne tàmbale na ñetti fan ci ñu kanam ci juróomi fan lañ ko war a liggéey kon yaakaar naa ñaari fan moo liggéey nañ ci ñetti fan mu des ñaari fan kon boo koy xool tigee nañu def liggéey boo xam ne dana tolloog doyog itte ji nga xam ne moom la ñu woote ci kanamu sëriñ bi waaye loola nag dañ koy dëppaleeg fi jamono toll ba tax fu waay mën a bàyyi ko it bu ñëwee ñu né nous nañu li yoonu murid du ñu ñi nga xamné ñoo dajale won seen pas-pas ngir taxawal bari bi ni tollé nak ci xayma ko xayma nañ ko ci ñetti patch patch bu ñëk bi di étudier ak suivi bi ñaareelu patch bi di gros œuvre yi patch bi jëm ci second œuvre bu dé biñ ko xayma mi ngi tollu ci cent millions bu gros œuvre yi installation chantier

buma que vous ci gën yaatal ci détail danañ dugg ci li wax bâtiment intelligent man damay indi rek bi fi toll ci xam-xam bu jëm ci wax day ngir nit ñi mëna xam li nga bëgg nañ def ngir bâtiment bi doon bâtiment bu jamono loolu nak biñ ko xeyma ci aju ci informatique ak téléphonie équipement réseau ak servir, électricité plomberie sanitaire contrôle d'accès vidéo climatisation climatisation képp bâtiment climatisation centrale laisse prévoir ngir mu mën a ci képp nga fi ak nga am nga dox ba mën jëriñu ba réseau incendie sonorisation imprimerie ascenseur audiovisuel rayonnage ba ci wàllu rayonnage yi rayonnage yi mooy armoire yi ñi nga xam ne ci la ñuy ranger téere yi xayma ñaari xeetu wàllu armoire yi bi ci ay armoire mobile Yo yoo dañuy leen di day nekk ci salle bu salle modulable bu amee xew-xew nga mën leen déplacer par télécommande ñu dawal seen bopp ba tafu ci miir yi ngir libérer espace yi bu amul événement nga mën leen kenn ku ci nekk nga teg ko fu tax nit bu ñëwoon di visiter wala mu bëgg jëriñu ci téere dina mën a jaar ci biir rayon yi ba fu téere nekk mu mën ko faa fekk boo jëlee wàllu yi ci fànn yëpp muy menuiserie bois menuiserie métalique ak aluminium xayma na revêtement sol muy li ñuy li gëna a ko nak muy marbre dana ci am ami barap yo xamné xeyna xëy na karo lay ak lepp lo xamné aduna ci revêtement sol ak mural intérieur ci bir xayma nañ ko revêtement mural extérieur xayma nañ ko lié ak équipement yi nga xamné ne nit ñi mëna liggéey liggéey yi nek biir yépp xayma lolu ci batu second œuvre lañ koy dégg ngir xeyna na ba ni ngi ko waccé mu tollu ci 1 milliard 225 millions

kon sinyalé na waktu bu bisa.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 sëñ Abdou doon wax nee na borom bët moom doo ko ne mu ngi nii liggéey bi moom ku fi teew ku nekkoon xam na li nga xam ne ci wàllu gis moom lañ jote liggéey euh, kon dañuy bàyyi sëñ Asmalik kan mu dikk ci euh, phase yi nga xam ne kon moom mooy li ñu liggéey nii ba nit mën a gis lu jëmm ba toll nii mu toll sëñ As bismillah. sëñ Abarke borom Tuuba kon. Euh, ñuy ci ci yi nga xamanteni moy liñ réaliser ci réalisé si biir 20 euh, mois yi nga xamanteni mom lañu la moy avril 2020, ba décembre 2021. kon lolu ci walu étude liñ ci jot réaliser ci total bi ngi tollu ci 51 millions buñ jëlé li nga xamanteni mom moy gros œuvre ci si installation de chantier buñ jëlé installation de chantier jël tamit li nga xamanteni moy ay démolition ndax fii dafa amone ay bâtiment yu fi nekkone yo xam ne nañ leen démolir évacuer leen ngir mën dogo doog exploiter li nga xamanteni moy site bi ñu jox lolu moy tollone ci 90 millions bu ñu génnee ci loolu nak ci la ko entamé li nga xamanteni moy fondation yi fondation yi n'ak lii ci liko composé woon bokk na ci fouy en plein en pleine masse ak béton de propriété bi ak radier général bo xamanteni def nañ ko bu dend également ak ay fondation yo xamanteni ay semelles isolées la and ak ay longrines de redressement ak ay semelles excentrées am tamit lu ñuy wax ay amorce pot xamante ni yooyu ci partie structure porteuse biñ ko defee day mancé ak li nga xamanteni mom moy plancher au sous-sol bi kon euh, lolu biñ ko calculer bo nopi ba def tamit suno ay soubassement en aglo plein de vin jël nañ remblai bi daal di remblai contre fondation ak li nga xamanteni non noonu la xóote woon ñu baña a dañ defon ay fouilles en pleine masse moy dañoo gasoon lépp bam mu nek ci fond bi di ci liggéeyandoo biñ paré defat nañ lépp lo xamante ni la fondation yoy ñoo ko estimé woon à 366 millions 251 cent donc lool moy li nga xamanteni moy coût fondation yi biñ ci génné nak attaqué nañ li nga ni élévation sous-sol bi si élévation sous-sol bolé na li nga xamante ni moom indi voile ak yep li wo lip manam si sous-sol bi sik tënk ñong ci cent trente-six millions sept cent quatre mille cent cinquante francs loolu moy li nga xamante ni mo dem ci élévation sous-sol bi biñ génné sous-sol bi n'ak si lañuy dogo am nak li xamante red chaussée bi mu and ak li tim sous-sol bi and ak leneen yi nga xamanteni ni mo moo fondation yi ñu doon jëk wax en semelle isolé yoy biñ koy def def nañ li nga xamanteni moy mooy en creux en aglo creux de 12 ak ay aglo creux de 15 ak ay aglo creux de 20 li ëpp ci bâtiment bi ay aglo creux de 20 mo ci nek agglo nak buñ ko xé moy li ñuy woowee ci langage ni moy brique ay mol, mol yoy ay moolu 20 mo ci def nañ ci tamit ci kaw élévation bobu nonu defoon nañ ci li nga xamanteni tamit dafa ak ay voile ginaaw les rez-de-chaussée bi biñ ko ngi millions deux cent vingt lañ premier étage bi premier étage bi it amoon nañ ci ay ay mol ay briques ay briques de 15 de 20 ak de 12 ak euh, lo xamanteni mom moy euh, voile ascenseur yi ak lento ak allège ak li nga xamanteni ni mooy couronne décorative bi nga xamanteni mom moy mooy wër bâtiment bi ak plancher yi ak dal bi ak escalier yi yoy biñ ko xayma mo ngi tollu ci liñ réaliser 171 millions 229 795 fi nga xamante ni nag lañ toll ni ci deuxième étage bi jot nañoo defaat maçonnerie yi nga xamante ci am en aglo creux de 12 15 ak 20 réaliser tamit li nga xamante ni mooy poto yi ak lento yeeg poutre ak ascenseur yi ak li nga xamanteni moy dal alvéole yi nga xamanteni mom moom lañ di technique te fi ak ñaari fan di dinañ ko paré ak escalier yi loolu biñ nga xayma moo ngi tollu ci 98 millions 342 mille 265 donc loolu moo jëm ci li nga xamante ni moom moo nekk ba léegi bâtiment année à xamante ni yóbbaale woon nañ fondation muy auditorium bi élévation ñoo ngi ñoo ay aglo creux muy mool yi ñu wax bi lenn rek moo ci des mooy coupole bi donc buñ jëlee auditorium bi élévation

réalisé en termes de gros œuvres buñ ci yoké milliard cent quarante trois euh, milliard cent millions quarante mille francs loolu moy li nga xamanteni réalisé ñu jox wa direction générale Nous, ñu li nga ñun techniciens yi bâtiment bañ ñu koy jox ñoom li nga xamante ni amee ne nañ ko ni ñoom ñu dellu si après ñu doog a jàll si leneen. waaw jërëjëf sëñ As kon loolu mooy wàllu jëmmi li ngeen mën a gis nii muy bâtiment bi nga xam ne li mu wax rek ci diggante euh, fondation bi ak sous-sol bi rek daanaka dem nañu deux cent et quelques millions te mënul gis lu génn ci kaw suuf nga xam ne kon daanaka suul nañu deux cent quatre-vingts millions nit soo ko mën a gis dara lu gën ci kaw kon nga xam ne kon pas la ci fexe def fi bâtiment boo xam ne dina dëppook itte ji nga xam ne moom la kon sañaatu wax ci kanamu sëriñ bi nag dafa am lu ko liggéey li ko liggéey ah ay itte yu bare yoo xam ne mbooleem ñi ànd ak moom isbu tarxiya wuy si nañ ko ñi nga xam ne safoon nañu isbu tarxiya ba lu bu tarxiya dugg it ñu fexe feeñal ci seen cofeel dikk nañ ci kon dana jaadu ñu leeral ñëpp loolu lu mu dikkee ba mën a liggéey lii nga xam ne tey moom la ñu mën a gis ci wàllu gros œuvre bi boo ko xoolee ci wàllu li fi dugg ci koppar toll na ci huit cent quatre-vingt-quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-cinq les mën a xayma wax fi mu jaar fi mu dugg fi ñu ko denc fañ ko génne ba li mu jënd loolu yëpp it am na ñuy këyit yoo xam ne mën na ko màndargaal ginnaaw loolu li fi dikk di bagage lii mën a doon matériaux de construction diggante ciment wala béton wala ay jumtukaay yoo xam ne ba tey dañuy dem ci liy liggéey lii mi ngi toll ci trois cent vingt trois millions quatre cent quarante trois mille loolu lépp boo ko xaymaa li nga xam ne moo jot a dajeegum ci première phase bi ñu jàll ba ci assemblée générale bi mi ngi toll kon ci un milliard deux cent sept millions six cent vingt sept mille six cent soixante cinq loolu nag ñi ko liggéey ah comme niñ ko waxee sànq bu dee ci wàllu isbu Tarqiyyah ànd nañu liggéey qui niñ ko xamé won ci phase digënté bi mois yi dagg nañ ko ci phase dagg nañ kon ci phase kon phase bi 20 décembre ba 19 juillet à ah, booba Hizbut Tarqiyyah li ca dajé mi ngi tollu 283 millions 587 275 li nga xamné kon ay partenaires fi 9 millions 73 725 kon première phase bi liñ ci dajale 292 millions 661 000. 292 millions 661 000. kon loolu mooy première phase bi kon ci turu kon jëwriñu daara ji ñi ngi siar sëñ Abo Mbakke mu sëñ Muntaxa mi nga xamné kon euh fekk ci nañu ci jotaay bi ngir dafa dikk ci ndax ku dégg gis ko muy yëngu ku ne euh, dégg nga mu waxal boppam ne lii day yëfi boppam joo xam ne jàppeewul boppam lu dul membre boo xam ne dafa bokk ci biir liggéey bi ànd ak ñoom liggéey bi kon ñu koy sant bu baax ci teewul ndax ginnaaw loolu it sunu sëriñ la te terewul doon na membre isbu Hizbu Tarqiyyah boo xam ne kenn gënu ko fee doon membre kon ñu ngi lay dalal bu baax Mbàkke Mbàkke Bàll ci turu mbooleem ku teew ci assemblée générale bi kon ñu wéyale kon liggéey bi ginnaaw bi première phase bi jàll

deuxième phase bi 166 millions 671 315 troisième phase bi mi ngi 10 octobre 2020 le 8 juillet 2021 foofa membre Hizbut Tarqiyyah yi li 251 millions 26 405 bu dee partenaires 15 millions 981 60 francs boo 267 millions 7 465 boudé phase 4 bi nga xamné mo ci topat kon muy jamono yu gi euh, mi ngi 9 juillet kon ba 19 décembre nga xamné da 9 juillet 2021 ba 19 décembre 2021 boudé ci walu isbu membre yi ñi ngi dajale 114 millions 362 755 bu partenaire, 8 millions 385 350 loolu toll ci 122 millions 748 000, cent cinq francs ci bolé phase 5 bi nga xamné duggu nañ ko xayma walé wuma nak li nga xamné mo duggu demb ak tay ndax liggéeyu bilan jafé na jafé go xamné day am fo xamné bo fa tolloo fo nga clôturer opération yi ngir mëna teunk li nga xamné moy li fi am lepp lo xamné dugat na kon lu weesu le 5 ndax bilan bi ñu ngi ko arrêté à la date du 5 kon li duggu le 6 bokk ci li duggu le 7 bokk ci li duggu bésub tay bi bokk kon buñu ñu ci

Boko xolé tu ci walu isbu 832 millions 784 235 ak ci walu partenaire 51 millions 400 430 lepp di 884 millions 184 665. Nous ko waxé nak du ay apport ci walu le rek mo fi dajé Boko xolé amna matériel ak ay engins yu bari yo xamné dajé na fi lolu biñ ko xeyma mu ngi ci 282 millions 518 000 kon ay machine toupie la ay projecteur béton la dampère la ay camion la wagon porte char ak ay conteneur ak yu bare yo apport en nature yu euh, chantier bi nga xamné euh batay euh xayma walé nañ ko ngir ko baña doon lo xamné dañ koy wala lefal wayé lu ci liggéey bi la ba tax ñu ñu lu euh, prestation 41 jours Pocolin yo xamné mo ci remblaiement bi ak lu bari ak transport Pocolin lolu loolu euh xayma nañ ko euh, mu ci 17 millions 750 000 am ñaari bâtiment yu mag yo ay la comme ko lañ ko ñu euh, xayma ko ci bari sax ndax ci départ bi ci 107 millions la prestation yi waye biñ ko taxawé ak ay pexé défé na ci 20 millions isbu Tarqiyyah taxawu nako ko ba 87 millions démolition wu ñaaru ouvrage yu amna yit batay matériaux de construction comme ni mako waxé sank sànq ay ciment ak ay béton kon boko xolé ci walu dajale li fi dajé bu niñ ko waxé won isbu Tarqiyyah kon ci walu bagage nature yoyu mom dajalé na 320 millions 268 mille. ku ci mu dajalé won ci copper 832 millions 790.

nii ci demee daa mel nii kon sag pas-pas mooy la nga waxoon ci sëriñ bi caabi laa la ameel waaye membre Hizbut Tarqiyyah yi laa koy seqal membre Hizbut Tarqiyyah yëpp kon góor jigéen mag ak ndaw ci turu responsable moral ak direction générale gépp ñu ngi leen di sant ci taxaw ak taxawaay bi nga xam ne waxtu wu ne guddi ak bëccëg ñi ngi koy def ba tax it ji ñu indi ko fii nga xam ne fii la yegg si ginnaaw loolu nag kon dana laaj ñu xool performance yi nga xam kon mom la daara yi def ndax li mom buñ koy def jëwriñu daara ju ne da nga waroon toog ci kanam sam loo toog sa ginnaaw ngir kenn ku ci nekk xam ne lii du ay chiffres yu ñuy inventé du lu ñuy lam-laame waaye ay itte la yu ay murit yu yaakaar sëñ Touba di ko liggéeyal am euh, di sàkku ngërëmam am pas-pasu defal fi sëñ Touba lu tax li ñu yaakaar ci am ko ci ngërëmam mën ko cee amee kon boo ko jëlee ci wàllu cellule nationale yi ndax nii la isbu Tarqiyyah séddalee ay daaraam li ñuy wax 1 boudé Dakar première phase kon seen théorie ñu ngi tok muy 54 millions 505 500 deuxième phase ñu joxé 25 millions 603 65 francs troisième phase ñu joxé 48 millions 11 515 quatrième phase ñu joxé 22 millions 558 500 cinquième phase kon à la date du 5 2 millions de jotoon dugg euh, lu waaw fukk ak juróom waaw nee nañu fukk ak juróom dolliwaat nañ ko waaw moo tax ma teel leen dànkaafu ci tàmbali kon daaree Dakar kon jusqu'à la date du 5 joxe nañu 152 millions 678 mille 580 kon euh, waaw kon sëñ Modou Thiam ak sëñ Moussa Sène jëwriñ nee na ngeen jóg taxaw euh, ñu sargal daaree Dakar. waaw nañ jóg taxaw déedéet déedéet déedéet déedéet eh, moom moom Dakar dama xam seen xumbal xaju fi. léegi sëñ Moustapha xol daf la nang yow jogal taxaw kuy sa responsable zone woko bu jog taxaw seigne dam ñu daf la nang wax moytu ko nak dina la dap léegi ba raw la motax motax may ni woko ne woo ko it la na jog taxaw ndax dama bu nek Dakar xamne ne bi ben rek la yu saarixoona fil khairat la liggéey nii boo xam ku ci feñ di nga feñ ci aduna feñ ci alakhirah kon su ngeen jëfé jëfalee seigne touba cent millions ci 20 mois dañ koy wax ci kaw deggu te loolu jotewul dara ak seen ziar loolu jotewul dara ak seen ziar jotewul dara ak seen koor jotewul dara ak seen màggal jotewul dara ak liggéey bi nga xam ne dafa sax ñu di ko def kër sëñ Muntaxa loolu bu ngeen ko defee bu fekkonte ne dina tax a ñàkk ñu mën a wax day tax ngeen di gën a naat ngeen di gën a yokk yaquudu lil aminu bil amini ma yuhsinul abdana bi tasmini seen xar kanam day gën a leer jox sëñ Tuubaa day tax a yokku day tax a gën a woom day tax a gën a am kon jógal taxaw yaa koo xool koo xam ne jëwriñu zone la da nga woo sañ daam njug nag na mu ay nitam nañ jóg taxaw dab si la léegi ndax yoon wi jiitu la ak dabe añ bi bi na lay doon war a wa radu anhum jërëjëf ñu ngi sant bu wér di sant jëwriñ daara ji ci li mu wax muy liggéey bi nga xamee ne nii eh, fii la liggéeyukat xas day toll ñuy soog a tàmbali ndax fi bilan bi toog li ci kanam moom la ñuy wax kon jëwriñ yi nga xamante ni ñoo fi ñoo fi nekk muy zone boo jëlee zone un zone un kon nañ jug seeni i jëwriñ zone un sëñ Seydina naa Ngéy ma nga ne le ñëwal jege si Cheikh Ibra Fall da jug taxaw rek fu taxawee foofu rek baax na fa mu ne Cheikh Ibrahima Fall ana kii eh, sëñ daam daam Njaay daam Njaay waaw kon ñooñu boo jëlee kon baax na boo jëlee zone deux waaw seen naa Bakar Ngay mu nga ne rek kon waaw yëkkati loxo ñu xam ko bismillah kon zone un ba zone douze ku dégg sëñ Thiam di woote na ñëw fekk si ko foofu ndax mu gaaw bismillah ay ca leen daara Dakar zone 1 ba zone 12 ku dégg sëñ Modou Thiam di soññee bul xaar ñu woo la bismillah na gaaw sëñ Modou waat waaw jug leen ñëw leen ku ne na jóg taxaw fi mu ne yaa ne fa mu taxaw rek na fa taxaw ku ne na ñoo xam ne seen bopp lañ jug rek waaw bàyyi njëkk mu ngi nekk zone 2 ñoom sañ Dor ñoom sëñ Birame sëñ Assane Mboup sëñ Mor su ma limee damay fàttali nit ñi ko ñi responsable li ñëw ñuy xam seen bopp sëñ Seer Sall awr di ba jege si leen Ibrahima Sey Bara Seydina Ousmane Mbégéré waaw ñu ngi noonu Seydina Ousmane Mbégéré sëñ ma ngo jori yaa ngi noonu Abou Diagne naa ngi nii Biram Biram Gueye dégg moom saaba la ay ta murid waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw sëñ Assane Mbuub sëñ Man Ndiaye zone onze jege sil sëñ Modou Fall bisimila jege zone 10 lamp Cheikh Ibrahima Fall ñëwal waay yow yaa leen na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw bismillah waaw léegi léegi ñoom sëñ daan jug moom na jug moom Dam, Dam, sëñ Dam, jug Dam, jug jugal waay Touba Sacré-Cœur bu gaaw ñun ñun ñun bilan zéro lañ def fi ñu toll nii góor si Mountakha moo ñu boole benn liggéey la waaw ñun bilan zéro kader ñu ko yooyu dem ngay toog daam ñëwal sëñ Samba Gueye sëñ Modou waaw kon yaakaar naa ni lii nga xamante ne bii jëwriñ daara ji leeral na ko boo jëloon tey ji ci espace su sëñ Blaat muy ñoom sëñ Abdoulaye Diba ak ñi àndal liggéey ndax mbooloo lañ ak ñi ko seqal muy ñoom sëñ Youssou Ndiaye ñoom sëñ ak ñi àndal liggéey bi yëpp sëñ Lamine Faye ñoom sëñ Abdoulaye Ngom ñooñu ñoo jiite espace sëñ Abdoulaye Mbacke bi yor ko ak Mbaye Diouf ñoom nga lu mel ni soxna yi ñoom itam yor nañu espace daara ji ci loolu lañ ko tënkee am na soxna yi mag ñi ak ndaw ñi am na góor ñi mag ñi ak ndaw ñi kenn ku ne ak sa espace liggéey bu ñëwee fi mu toll nii bu la waxoon ne cent cinquante deux millions yi ak 15 millions yi indi tey boole ko ci loolu kenn ku ne mën na laa wax ci membre daara ji yëpp kenn ku ne li nga ci joxe waaw loolu itam amu ci li ñuy réer ndax tuub ak toroxlu lañ koy jàppe ak tàmbali ne dañuy tàmbale guñu dañuy soog a tàmbaliwaat jugaat jaayantewaat suñ tubaa ci li nekk suñ kanam te xam ne li ñuy bàyyi xel mooy jëriñ daal ji leen waxoon Cheikh Mamadou Mountakha ne ko caabi laa la amel caabi jooju mu ko waxoon fuñ mën a ne ñu ngi teewlu Seexul Xadim mu ne ci suñ xel du ñu nelaw du ñu dallu te caabi jooju yëkkatuñ ko jox ko Cheikh Mamadou Mountakha équipé bâtiment bi ñu ko waxoon na ko bu yor am xel lay doon soo ko jotee bunt boo war a ubbiku boo fay dugg carte banque ba lay fay dugal loolu lépp dana ko def ànd ko moom Mamadou Mountakha ñaan nañ ko Serigne Touba ci jotaayam bi ci pàkkam bi ndax ñëw na fi membre yi nag ñi fi nekk ñëpp fii moom xasaanu rabbi futihat lii moo fi ne magasin yi suñu borom la ah, ku fi nekk sa jëmm magasin la boo xamante ne bi liggéeyal yàlla rek moo ko tax a

ñun nañ xam ne bilan zéro bu ko mot ci am waxee kuréel yi nañ ko gën a firndeel loolu rek laa doon wax. jërëjëf waaw Dakar moom man suñ ma bàyyi woon dinaa leen kañ yéen du ngeen noppalu guddi du ngeen noppalu bëccëg da ngeen di jànq di reñaan di liggéey saa su ne boole kooku woyaf ak xam ne sëñ Touba kenn du liggéey ci sëñ Touba di wane sa bopp da ngay toroxlu ndax sëñ Touba kenn mënut a jot ak xam. kon suñu wooyee jëwriñ ñi dañoo bëgg nit ñi gis leen ngir roy leen toogaat leen jàll ci yeneen daal dama bëgg ñu xam ne évaluation bi dañoo bëgg faw mu doon loo xam ne am njàng daf ci ne waaye temps bi may ñu sax li bëgg a def ñu mën koo def ni ko war a defee sëñ aatu dinaa ci wax ñaari baat sëñ atu moo tàmbali liggéey bi sëñ Muntaxa jël loxoom bu tedd bi teg ko ci waggam ne sama waa ji laa koy àndal. liggéey bi maa koy liggéey waaye sama waa ji laa koy àndal. kooku kon mu ngi suñu biir li ma leen di wan nag firnde ne sëñ Atou suñu biir mooy tey jii jarbaatam tudd sëñ Xaadim Ngay sëñ Atou yar ko toqi ko ànd ak moom ci sëñ Saaliwu ba muy jox sëñ Saaliwu juróom-ñeenti mbàjj yu mu jëlee Gàmbi juróom-ñeent wala fukki mbàjj yu mu jële Gàmbi douane yi téye ko amul lu mu ko fayee sëñ di ko wan ne ko ne ci rek mu ne ci ba tey jii rek téeméeri million ak juróom fukk joxewaat na ko yoo xam ne lan la wax dafa ne juróom fukki million yi ñaar fukki millions yi juróom sëñ Aatu ko joxe ñaar fukki millions yi juróom maa ko joxe loolu duggaat na ci liggéey bi téeméeri million yi. imprimerie bii ñuy def fii ci suuf dañoo bëgg mu doon imprimerie de dernière génération mu ne waxaale leen machine six couleurs bi nga xam ne mooy doon Heidelberg machine yi nga xam ne du yàqu da nga koy yeesalaat rek machine yooyu bañ nañ ko ba souterrain bi lañ ko waajal fa lay dugg machine bi ñu ko waxaalee mu doon cent millions mu ne mu ne dugal naa cent yi bu ngeen jekkee kii dem jëli ji ko Italie la koy jëli ji dem jël ko chargé ko ci conteneur indi ko lépp féete kooku moo àndoon ak sëñ aatu liggéey bi biñ koy tàmbali biñ ko àndee saa boo xamante ne gars yi gis nañ xare bi mel ni dafa nar a tàng mu am nu mu dikkee noo xam ne day ñemeloo ñëpp kon xam liggéey bi sëñ aatoo ci mënoon waaye ba bisub tey moo ci mën kon kon ñun nañ ñun nañ ñaan sëñ Tuubaa nangul ñu rek sëñ bi bu la liggéeyloo dalay lay jox jumtuwaay kon kii di dikk sëñ maam Thierno nañ ko ñaanal sëñ Mountakha mi ko jël ci liggéey bi li mu bëgg ci moom yàlla na ko am euh, sëñ maam Thierno mu sëñ mu Moussa Bassirou woyof lool mi ngi ni fekk fi euh, sëñ Abou rakkam mi ngi nii kon gis mi ngi noonu kon ñun njabootu sëñ Mountakha dese luñ daa ñoom dañoo laxasaay ñëw suñu biir woyof ànd ak ñun liggéey bi kii may wax sëñ Xaadim Gaye moom may wax indi na fi machine tuppi jox ñu ko bo xamné millions la ne ñun buñu liggéey ba di ci liggéey di am xaliss di liggéey moutakha liggéey machine projecteur à béton 75 millions camion Renault bo dafa day millions mu ne ko ci almet cost ci du wagon porte char 15 millions te li may wax ni jotewul nag bis bu set béton mi ngi bis bu set alal la ngi ñëw kooku sëñ aatoo ko toq ci liggéeyal sëñ Tuubaa mës naa am ci gàttal boog ndax lépp ci sëñ Tuubaa jàngale la suukar su bari su mu joxoon addiya sëñ Saaliwu sëñ Saaliwu jël ci ab lim ci suukar si yónnee ko ku ñu wax sëñ Abdou Samad la ci Njaareem sëñ Abdou Samad la ci daaray kaamil ji la nekk foofu ci Njaareem la nekkoon defe naa ko xam njaareem di nga ko xam ba mu ko yónnee daf ko wax ne ko si Abdou Samad suukar si ma la yónnee de li tax ma yónnee la ko mooy suñu bis boobee nga xam ne maag yow ak sëñ Soyebu ak sëñ Ablaat ak sëñ euh, Moustapha Gaye euh, ñaari tafaa la woon kenn ki dañ ko wax sëñ tafaa benn sëñ Moustapha Gaye tamit boo xam ne sa jëmooy Gaye la mu ne ba ñuy dundal guddi gàmm yor cafetière kafe te amuñu tànk bu ñu ko suukaree bu gàmm ca njaareem yor cafetière café te amuñu tànk bu ko suukaree kenn ci doom yi ci ñu ña fa nekkoon moo indil suukar su bare mu yónnee la sa kon loo liggéey Sëñ Tuubaa lu mu la dina ko jox say kon lu am solo la fi ñu toll nii poroxaan képp seen seen dund at la génne loolu kon loolu maa ngi ñaan jataay bii ñu mel ni moom bare fi mës naa ko wax sëñ Muntaxa ko ñoo xam ne seen loxo day gaaw ñuy joxe ay téeméeri million ba pare boole ko ay rangooñ du ñu yëg seen bopp du ñu gis seen bopp wala seen ne yow toona maa aataw na wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji'uun la ñoo ñooy gaa yu baax yi yàlla nañ fi bari kon looloo tax muy wax lii waaye waxuñu ko ngir kañu fii du jataay boo xam ne kenn mën naa jàkkaarloog sëñ tubaa siggi sëñ tubaa naan siggil rek waaye naan naa góorgóorlu ba siggi fooy jaar ba siggi sëñ bi àdduna ak li koy li ci biiram boo ko defalee li nga xam ne mënta jënd sa mënta mënta jënd àjjana mënta doon caabi juy tëj buntu sawara sëñ tubaa ñu ko defal kon defe na lii mooy bis bi sëñ bay jong mi ngi si jataay bi limuñu ko ci benn partenaire xalaatuñu ko membre Hizbut Tarqiyyah pire la nañ ko xàmmee na jóg sëñ Bay bëgg naa gars yi xàmmee la jógal ñaar fukki million def na ko fii jógal ñu gis la bu baax fii luñ fiy nëbbu amatul da ngay feeñ bis pëj yàlla bu la ko kenn gën a feeñ loolu am solo àggal suuf te xoola te jaajuwaat dugal nga ñaar fukki million waaye jaajuwaatal waaw bisimilah jarul nga koy wax ci kaw sax ñun xam nañ sa affaire yow nu mbir bi gën a lu gën a baax toogal kon noonu baax na Euh, sëñ Bakar jàlloo mii ñaar fukki million ak juróom def na ko fii jógal taxaw ñu xàmmee la da ngay liggéey sëñ Tuubaa te jaajuwaat waaw juróom fukk sax boo ko bëggee mën nga ko jaajuwaat la dafa jël bi dafa gaaw moo tax ko jox micro bi waaw mu ko xàmmee leen ko jëwriñ la suñu biir kon gaayaay ñi ñoo xam ne ñoom te nag li am solo koo xam ne day joxe ñaar fukki million te bu ñuy balee ñay bale moo leen di mën bu ñu terali gan mu takk lo mu takk ndiggam di teral gan yi ba gan yi yaakaar ni kii ab dongom daara la bu nekk ci kër gi fekk na du loolu sëñ Tuubaa la ñuy wut ngërëmam kon Hizbut Tarqiyyah ngi woo waaw defe naa loolu lu leer la kay moom defe naa euh, bu ñu jëlee Dakar wax ci loolu su ma waxee sëñ aatu bu nga xam ne ba bisu tey day joxe bu ma tuddee sëñ Mbaye Diong tudd sëñ Babacar Diallo mi defe naa loolu li ma ci jublu bu ma doon tudd gars yi bu jeex toog nañu fii jataay bi ma Madické Niang woote mais fi ñu toll nii dafa wax en tant que ancien membre tey ci suba juróomi million la dugaloon ci compte bi mais sànq ay rangoñ la lay sotti ne dolli naa ci yeneen juróomi million muy fukki million kon loolu pësteef la lii lépp dañ xam ne kon réew mi moom soo génnoon ñi nga xam ne def nañu ci daara Hizbut Tarqiyyah wala daayira étudiant murid jaar nañ fi soo leen génnee kuy ëpp doole Hizbut Tarqiyyah ci biir réew mi du fi am ñëpp ci lañ bokk kon loolu dama ne woon naa ko ci jox sëñ keeta nga gaaw évaluer yeneen daara yi ndax du Dakar rek def njàmbaar tuddaatal daara yi Rufisque tuddaatal daara yi yëpp ba tudd Touba yëpp ba tudd leen ak bitim réew fii ba États-Unis damay wax man daara lay wax daara Amérique daal lañ fa yor joo xamante ne du caagir mbooloo mu bari de ndax mutuñ juróom fukki nit waaye su ñu waxee seen jëf li mu wóor mooy Amérique ak Canada bu ñu dajalee seen addiya di ko jox sëñ bi lii may wax ni moo ko yóbbu kon du caaginu dara lu dong yi ñoo war a toqiwaat seen bopp ci joxe addiya addiya sëñ Muntaxa bu laajee 37 million waat naa ci seexul xaddim 37 milliards bu ko laajee fanweeri fan ak juróom-ñaar waru koo mat fanweeri fan ak juróom-ñaar bis bu set milliard bis bu set milliard ba muy fanweeri fan ak juróom-ñaar sëñ bi daal di wax ne loolee ma leen doon wax mat na leneen nañ ci toppaat loolu loolu léegi ñu àgg ci xam ngeen lu ko yéexal nañ ma ko laaj. laaj nañ la ko xam nga sëñ Tuubaa moom moom àdduna ak alaaxira xazaayin rabbi futtihat lii wa zahzaat li xayri azaa dunya wa uxraa wa barzax moo ko moom lan moo tax ubbiluñu ko mais waxi suñu borom ji. dañoo war a góor góorgóorluwaat gën a yaru bu ñu yaru mu koy sotti parce que dafay bañ musiba dàng walaw basatallahu rizq ala ibadihi la baxaw la baxaw jooju nag lenn dong ñu ci mën a musal mooy ñu tarbiyee ñu yaru xam ne fay jant bi fenke ak fa muy xale soowee yilif ko ak laxasu yalwaani laa yamale mais boo doonee koo xam ne boo amee tuuti dërëm rek yaakaar ne boo ñëwee sëñ bi daa war a bàyyi yitteem génn ñëw nuyu si la ci saal bi loolu may waxee lan ak ku nuyu sëñ bi yaakaar ne soxla nga ko war a wax loolu daa war a jeex sëñ bi benn cinq minutes bu mu génn ñaanal ñëpp doyoon na ñu bàyyi ko mu nekk jàkkaarloog boromam mais léegi ku ñëw nekk ko sama yitte faw ma wax la ko te mu nekk koo xam ne mooy faj aajo yi ñii aajo ñu sori lépp moo koy lijjanti sëñ bi na góor nañu góorgóorluwaat gën a yaru bu ñu yaroo rek léegi yëf yi sotti ko loo xamante ne daf ñu jàqal sax te boobaat du ñu yàq te bu ñu yàqul liggéeyal ci sëñ Ba lañ ciy def bu boobaa lépp day sotti lii daal laa ne woon naa ko ci dolli jërëjëf waaw jërëjëf kon euh, ni daaray Dakar def daaray Tëngéej moo ci topp première phase joxe nañu 10 million deuxième phase 3 millions 379 000, troisième phase 10 millions, quatrième phase 5 millions 339 940, cinquième phase 1 million 197 500. Quand Daaru Rufisque 29 millions 917 090

ngay wax 4 602 750 première phase 1 846 000, deuxième phase 2 819 500 troisième phase 2 millions 000, quatrième phase 855 000, cinquième phase muy 12 millions 128 250. kon ñoom Khalil Gueye. Ibra Fall. dañ daam waaw góor. waaw Cheikh Diouf. waaw góor moom Modou Kara. waaw kon yéen ñëpp sukkuraan kon ngeen xam ne kon seen liggéey ni ngeen ko liggéey yegg si na boo jëlee daara ji ci topp. bu ngeen demee nag seen euh, mbokk yi nekk foofu daara Hizbut-Tarqiyyah daara Xuddoos nekkoon foofu te nekk Thiès yéen ak ñoom na ngeen mel ni Garayeen Falay. bis ni ki tey bu jàllee bu kenn xàmmee sa morom ne frontière amati na ñu seq liggéey bii ndax temps bu ñu perdaat ñoo waxtaan

180 205 quatrième phase nous 22 millions 238 200 sixième phase cinquième phase nous 6 millions 176 000 kon Daaray tout bas nous 133 millions 159 505. ana sëñ Omar Thiam ay ci leen sëñ sëñ euh, sëñ Alaaji Baya Diouf sëriñ Cheikh Fall sëñ Awa Balla Fall sëñ Abdoulaye Fall bisimilah jàll leen jàll leen mu gaaw ana sëñ Fallou Diop taxawal waaw jàll leen mu gaaw ana Omar Sall foofu li ma leen di wax lu leer la yéen moom sëñ Galas ak ñoom euh, Baya ak ñoom sëñ Cheikh Fall ñoom sëñ Lamine Gueye sëñ Moustapha Gueye yéen ñëpp gaa yaa ngi nii ku ma leen joxoon comme Mout Thiam da ngeen di bëri wax. ndax fi ñu doon xam naa leen yéen moom kenn ku ne ci yéen jàmbaar nga joo xamante ne bëgg nga feeñ ci liggéey Sëñ Tuubaa lu ko mat la nag waaye yàlla nañu feeñ bés penc ñëpp moo am solo li ma leen di wax mooy ani sëñ Matar Thiam dama bëgg nga jóg gis liggéey Sëñ Tuubaa mosu cee des ginnaaw leer laa leen wax à partir d'aujourd'hui di leen ko lim di ko évaluer ci seen i zone ميجي اي جامار يو خامتاني داجو نيكون دي وقتان ريك اك دي خول فيني جار ماغال با نوبي ني ناي خار با غامو با نوبي بي غامو با نوبي ناي وقتان خول في وقتاني جيخنا من ليغي سين توبا سو ما وقتاني جيخنا فيرول ني بونو ديسو دي ديت ليب نيوكاي اند واي داما بغي جيف جي دي جيتو جوخه بي دي جيتو لاج بي ndax dañu wara song gaynde ko xamne dama bëgg ñu livrer ko ci 2022 bi waaw waaw ci 2022 bi incha allah ci kattanug sëriñ bi lu yomb lay doon sëñ Thierno mi ngi nii xam na ne sosiment waajal nañ ko ci biir université lépp ngi ci loxoom nañ la liggéey di bâtiment ci 70 bâtiment 37 milliards te sóoraale ñu tuwoon lii lii ñëw di 2 milliards 600 lay doon kon sëñ bi su ne woon 37 kon 40 milliards la 40 milliards lay doon waaye incha allah dina mat ba ñu wis la waaw ñun moom ñooy ñoo xam soldaar yoo xamante ne mën nga noo jëfandikoo nu mu la neexee waaw la Saad ibn Saad ibn Abi Waqaas waxoon rek ñun foofu lañ ne waaw loolu ibn al ibn al سمن الأسود مدين أن يسير بهم إلى الغمان بصدق دفو دغ بانيكو نيون لسيدنا موسى لاكو وا بني اسرائيل واخون دوج لاكو واخ دي نان ياك يالا جيغا ام من غينا خاري دم نين خاري ديدت نيون بو ندون يوبو با باركول خيمات دون ديلو غيناو لولو نيك سي متار تام مي مو نيك سي نيوم سي انت مو نيك سولدار يي نيك فوفو سي دار خدوس ان لين غين رافيتال ليغي بي يف نيك صاح كي جوخي مليون ki joxe 1000 francs ak ki joxe xàmmee nañ leen déedéet ragal yàlla gi ak pëstéef bi moo ci am solo ak tamit ànd gi ak xol yi booloo loolu lañ soxla dërëm sëñ Tuubaa dërëm bu sëñ Tuubaa nangu moo gën milliard bu sëñ Tuubaa nangu kon nañ boole xol yi loolu laa wax waa Touba wéyal leen liggéey ba jërëjëf boo jëlee daara ji ci topp daaray euh, mbuur kon daaray mbuur 4 500 000 joxe première phase 203 000 deuxième phase 2 715 740 troisième phase 2 200 000 quatrième phase 455 500 cinquième phase Darimbour, Mbuur ñu 10 millions 74 240 francs. Balla Balla Sow euh, Lamine Asmalik jógal waay sëñ Asmalik kan Modou Sadio sëñ musaa Thiaw mu sëñ Modou Fall Thiaw jege si leen sëñ Modou Fall Thiaw waaw jëwri njàngoog bismillah kon jërë ngeen jëf waa ngeen jëf jërë jëf sëñ oh, Mbour mu sëñ Saliou ba mu waxee sëñ Atou ne ko ah nekkati am ngeen daara Mbour mu ne ko waaw mu ne ko loolu de sama xol sedd na ci lool naka jekk damaa bëggoon ngeen am fa daara kon mu ngoog daara Mbour waaw Wow, Quand on a gagné, la première phase 1 million 250 000, deuxième phase est 000, troisième phase 738 400, quatrième phase 900 000, cinquième phase 60 000, la deuxième phase de 2 990 400. Quand on a gagné, on a gagné. Quand on a gagné, on a gagné. Quand on a a gagné. Quand on a gagné, on a gagné. Quand on a gagné, on a gagné. Quand on a gagné, on a gagné. Quand suñ ko toppee nii di temps bi ñu bëgg a def day am problème gis nga sëñ Mor Thiam daaraam bi mu xasee jàll mi ngi bëgg ñu taxañ yeneen daara yi nee na nee ndax da ngay liir daal te bu yàggee ci Dakar maa ko mujj maa ko mujj arrêté xam nga loolu doy na waaye léegi fan liiral yëpp ba mu des bitim réew après ñu door a ñëw liiral yëpp ñu boole ko benn commentaire ci cellule national yi ak lii waaw kon Boudé dee daaray euh, njagañaaw kon loolu la Thiès wax nañ ko Joal wax nañ ko Joal euh, première phase 3 250 000, deuxième phase 243 000, troisième phase 974 000 quatrième phase 1 500 000, cinquième euh, cinquième phase 60 000, muy 6 millions 27 000 boo jëlee kon première phase 3 250 200 euh, deuxième phase, 600 4000, Troisième phase, 2 372 500. Quatrième phase, 2 millions. Cinquième phase, Tambalé à la date du 5. 8 236 300. Bodjele Kon, Daré Kebemer. Première phase, 1 379 800. Deuxième phase, 25 000. Troisième phase, 325 000. Quatrième phase, 700 000. Cinquième phase, 25 000. 2 454 800. Daré Louga première phase 3 millions 500 deuxième phase 32 000 troisième phase 971 300 quatrième phase 1 million 800 000 cinquième phase 35 000 6 millions 338 300 Daara Ndar Saint-Louis première phase 2 millions 588 500 deuxième phase 513 120 troisième phase 1 million 895 220 quatrième phase 1 million 800 cinquième phase 206 260 kon 7 millions 3 100 francs première phase 3 millions 500 500 deuxième phase 295 000 troisième phase 1 million 177 000. quatrième phase 1 million 500 cinquième phase 32 000 lañ Mouy 6 millions 505 000. boo jëlee première phase

500 e phase 388 500 contre Daré Durbel 11 865 000. Daré Fatik, première phase 3 805 000, deuxième phase 637 000, troisième phase 2 706 375 quatrième phase 1 million 800 000, cinquième phase 235 500 contre Fatik Toluti 9 183 875 Daré Kaulak, première phase 7 700 000 deuxième phase 1 million 290 000 troisième phase 3 millions 360 616 600 quatrième phase 4 millions cinquième phase 287 250 mu 16 millions 823 850 boo jëlee Tambakunda. première daaree Kolda première phase 920 50 francs deuxième phase 142 000 troisième phase 601 920 quatrième phase 600 000, cinquième phase 238 000. Compte d'arrêt Colda 2 501 970. d'arrêt Tamba, première phase 3, 200 100 francs. Deuxième phase 1 588 100 francs. Troisième phase 2 475 115. Quatrième phase 1 314 925. Quatrième phase 199 500 nous 8 777 740. Dare Ziguinchor, euh, première phase 1, million, 600 500. Deuxième phase 796 500. Troisième phase 1 799 000. Quatrième phase 1 million. Cinquième phase 382 500. Nous 5 578 500. Quand Dare première phase 144 millions.

kon suñ daara Kaolack ak yeneen daara yëpp waaye li may wax mooy quatre cent six millions su fekkee ne daara yi ci biir réew mi def nañ ko loolu dafa am signification jamono tollootul foo xam ne danga nga naan yëf yi bitim réew lay jógee faw ñu ne ci réew mi gëm ne war nañoo mën a liggéey loo xam ne dañuy xam ne am na lu fi ne su amee ñu yaakaar ne dara newuñ fi dara fi nag ba ñu yaakaar ne fu ne la war a dem am na ñoo xam ne gëm nañ ne daraa ngi fi te suñu borom fa sa ne day kon liggéey bu am solo la boo xam bu ñu gënee nag takko ànd ko yaakaar naa rafetal yi ak taaral yi jël suñu bët ñu teg ci or ak jamaa yi suñu taxaa tudd suñ ko mënul it nañ fa dawtal suñu yéene mooy tax doo fi def njogaan loo ki sa xel nekk xub xubee euh, li wadde ko or wala jama foofu dañ fi def lu baax sa xel bu ci ndewee su ko defee bés boo cay àggit ñu xam ne suñu borom àgg naa ndax suñu muntaxaa lu tudd lu amul ndax yëf boo demee ba yaakaar ne jëf na mën ngaa gën a jëf waaw ndax suñ muntaxaa dafa sëñ saali màkkat yi dafa naan wax ne du ma yërëm kenn ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax damaa xam la mu cay jële te yéene ko ko waaw mu ne boo yoru dara boo yoru dara di jéem loo jox sëñ tubaa dangay ngay da ngay am wërsëg boo yoree lu néew di ñett ñetti di dajale di jox sëñ tubaa da ngay bare le boo yoree lu bare di ko xëpp sëñ tubaa day barkeel li nga yor di nga dendeek koo xam ne yor na lu bare ndox ñëw gaar ko waaye yow ndok du am fu lay jaar bul tiit ci sécurité ngay ne kon jox sëñ tubaa moom bénéfice dong la sëñ Mbàkke bu solo mu waxoon rek nee na xaw ma lan laa umpale day waaye ñaara ngi ne yoo xam ne xam naa ko ci bi ma àndeek ak tubaa mooy ñàkkal sëñ tubaa dina joxe barke jox jox addiyee sëñ tubaa dina dolli wërsëg kon waxal ci waa bitim réew jërëjëf kon boo jëlee ci waa bitim réew daara yi nga xam ne moo féete Afrique bu dee Afrique du Sud

quatrième phase 1 million 700 000 cinquième phase 1 million 400 000 Mouton 14 millions 854 000 boo Gabon première phase 1 million 302 500 deuxième phase 175 000 troisième phase 1 million 518 000 quatrième phase 1 million 372 000 cinquième phase tàmbaleeg Mouton 4 millions 367 500 Gambie première phase 190 000 deuxième phase 100 000 troisième phase 270 700 quatrième phase 50 000 cinquième phase tamblé Gounou, Moutolotti 610 700 Guinée-Bissau première phase 1 500 francs deuxième phase 623 000 823 000 troisième phase 1 351 000 quatrième phase 700 000 cinquième phase 333 000 kon Guinée-Bissau 4 207 500 Mali première phase 718 700 deuxième phase 145 000 troisième phase 496 200 quatrième phase 180 000 cinquième phase 25 000 mouton 1 562 900 Maroc première phase 751 950 deuxième phase 241 000 troisième phase 176 800 quatrième phase tàmbaleeguñu cinquième phase 20 000 mouton 1 199 750 Mauritanie première phase 2 millions deuxième phase 2 millions 500 troisième phase 5 millions 500 quatrième phase 9 millions 500 cinquième phase 3 millions 500 mu toll ci 23 millions kon lolu Afrique bo Amérique première phase 630 000 deuxième phase 40 000 troisième phase 235 000 quatrième phase 35 000 cinquième phase tàmbaleegul Mouy 940 000 Canada première phase. 500 000 85 francs deuxième phase 849 500 troisième phase 1 million 325 000 quatrième phase 541 000 cinquième phase 290 000 Mouton le type, 3 millions 505 585 boo États-Unis première phase 18 millions 560 540 deuxième phase 17 millions 948 070 francs troisième phase 18 millions 78 205 quatrième phase 12 millions 459 340 cinquième phase nous matal nañ à la date de taille. mais date bi évaluation le 5 ñi ngi 8 millions 473 180 les di 75 millions 519 335 boo axe Europe Boudé Espagne première phase nous ngi 3 millions 630 730 deuxième phase ñu joxé 1 million 536 000. 300. Troisième phase, du 1 142 855. Quatrième phase, du aurez 1 688 300. Cinquième phase, du durée 140 000. L'EP, 8 138 185.

sëriñ bi da koo doyloo ba liggéey bu màgg bi nga xam ne moom la doon def loo sëñ Maam Mor tey jii bu tege ci loxoom yàlla na yàgg lool te li ci sëñ bi bëgg ci moom yàlla na ci am lu kawe njortam ku ne xam ne ne alquranul karim ci li mooy lijjanti lépp li nu fi tax a daje alquran a ko mën a lijjanti ndax lépp a ci biir kon su fekkee mi ngi ciy liggéey di sëtu di sëtub sëñ Touba di sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall jataay bii kon jataay bi dongo la jataay bi murid saadix la te suñ suñu borom gërëm na bu fi ñaanee lu waay indaale ci yitte dina sotti waaw yittey saayir ak yittey baatit ñii nga xam ne ay doomi boppam njabootam yi toog fii ñëpp kenn ku ci ne boo ñaanoon aajo yi aajo faju waxtuma laak jataay bi moom mu ñëwaat boppam teewal ko kon ñoom teewal nañ sëñ Muntaxa dama bëgg nag Mbàkke sant leen te seere leen ne sëñ Muntaxa moo boolewaat njabootu Hizbut Tarqiyyah gépp balaa may ñëw ci commentaire bi sëñ Mbàkke Cuun mii maa ngi koy sant ndax biñ ñu boolee liggéey bi moom moo jiite woon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos xam naa ko bu baax ndax sama rakk la ñoom ñëpp ba mu nekkee fii ci Hizbut Tarqiyyah jàmbaar rek la fi woon itam yàlla suñu boroom ci coobareem ak ci loo xam ne moo ko dogalal boppam loo xam ne ku am xam-xam du ko jéem a lijjanti la na ko waral moo waraloon mu mel ni ab diggante am na boo xam ne ñii dañoo nekkee nale ñi nekkee nii waaye ku xam lislaam dara di nga xam ne léeg suñu borom day def lu mel noonu waaye day am lu mu ciy jub waaye sëñ Muntaxa mi yor cër bi boolewaat bi mu jotee da koo wax rek mu am kon loolu moom bu ci taxawul woon taxawaay bu rafet du ma ko mën a seere tey nag day bis boo xam ne dañoo woote jataay bi ngir soññante waat ndax liggéey sëñ Tuubaa foofu ñuy soññante adduna dafa mën a jay nit wala jafe day mel ni jafe-jafe am na wala dafa mel ni dañoo war a xool ay ay melaw jamono te yooyu yëpp amul solo ndax sëñ mu Moustapha bi muy tàmbali bi muy liggéey jumaa ji boobu crise 1929 la woon adduna sépp nekkoon ci crise muy wane ne liggéey sëñ Tuubaa amul crise xamul crise raay bi ba mu koy jëlee njaareem di ko indi Touba murit yee ko liggéey te boobu kenn xalaatul woon ne mën naa ne Sëñ ba muy wootee liggéey jumaa ji itam wax na ne xam naa ne bu bu nawet meloon na mu war a mel dina demee neneen waaye teewul ma xam ne mbay bu nangu xol yu nangu ko gën a wóor te xol yi nangul nañ Sëñ Touba kon loolu moo tax ñu daje di soññantewaat rek ndax xam nañ ne sëñ bi li mu yeyoo mënuñu ko waaye bu ñu boolee suñu xol yàlla amul xol waaye suñu boolee suñu xol da koy jël def ko muy xolam lijjanti lépp kon moom sëñ sëñ Mbàkke bu ci kanamee dinaa ko jox kàddu mu soññaat mbooloo mi waxuma ko mu soññ Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ak Hizbut Tarqiyyah HLM ak nangam yooyu amatul de benn Hizbut Tarqiyyah am na ma soññ man mii mag gaa yëpp nañ ànd suñu kilifa yaa ngi nii nañ góorgóorlu ba xam ne njabootu sëñ Tuubaa gaa ngi fi te doonu fiy jóg ñoom ñooy ñoom ñooy sëti sëñ Tuubaa yi ñii ñooy muhaajiriin yi waaye ñun ñooy lansaar yi ñooy lansaar yi tey jii ñun sëñ Muntaxa membre la suñu biir bi mu wooyee dongo yi ñun la woo ba muy woote bisu xasida yi man man mu doyee di mii la woo ba muy woote bisu zikrul lay bisu maam Cheikh Rafal woo na ma woo sëñ si Abdou Latif ak sëñ Mustahin ñu toog a ndaw moom ñu ànd liggéey bi ñu am ci ngërëmam am ci ngërëmal njabootu maam Cheikh Rafal tey jii ñu woote suñu bis ñun ngir soññante suñu biir kon ñun ay soldats yi sëñ Tuubaa lañu waaw kon jërëjëf sëñ euh, sëñ Mbàkke damay jox kàddu gi sama kilifa yi waaw hmm. waaw waaw kon baax na kon dañ lay jox nee na dafa ñëw ci aajo ju faju ji dafa barkelu si kon ajo ji faju na waaw kon nag sëñ Wóor Xabaan moom sëñ Muhammadul Faadal nee na dafa ñëw ci ajo ju faju ji fu waay toll na xam ne tey ajo ji day faju jërëjëf na ñëpp tàllal jërëjëf jërëjëf Mbacke waaw nee na jëwriñ yaa ngi nii kon dafay ànd ak ñoom jërëjëf jërëjëf Mbacke <laughs> jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke <laughs> ci kon damay damay waaj a jox sëñ maam Thierno kàddu gi mais balaa ma koy jox damay def commentaire bu ndaw ci cellule à l'étranger ñan ñoo des waaw kon commenté ko ba noppi waaw tudd ko kon moom mu àggali cellule à l'étranger rek Europe Amérique ak Afrique ma def ci commentaire bu ndaw ñu jox sëñ maam Thierno mu mën ci dolli ekkat ndax moom da xam ne liggéey bii ñuy def nii gis nga lu ñu jàmbaare jàmbaare su fekkonte ne dëppalewuñu liggéey bi ak norme yi nga xam ne euh, ñi yor contrôle bi norme yi nga xam ne ñoom lañ tëral su fekkonte ne liggéey bi dëppoowul ak norme yi nga xam ne moom lañ tëral ci wàllu université bi kon tey jii kersa dinañ ko am waaye tey jii moom bu toogee fii ba seere dina war a liggéey yi nii boo xam ne ñun mosuñoo réeroo ak moom mi ak ay équipe liñ ñu digal lañuy def saa su ne ñu ngi ñëw di xool fi ñu toll liñ ñuy digal duñ ko duñ ko duñu wuteeg mu moom mu ko loolu lu am solo loo xam ne man dinaa ko jox moom mu seeral ko boppam loolu it ñu dolliwaat courage dolliwaat ñu pas-pas ñu xam ne liggéey boo bëggee mu respecté ay normes internationales doo wéy ci sa njort rek wala sa àll di def nu la neex da koy teg teg ci yoon waaw bisimilah. waaw ñu tënk rek ñaari daara yi nga xam ne ñoo ci des bu dee France. Euh, première phase 6 143 530 deuxième phase 4 169 405 troisième phase 8 109 490 quatrième phase 3 570 540 cinquième phase 1 445 890 comme bu France 23 738 855 bu Italie première phase 23 millions deuxième phase 16 393 500 troisième phase 22 500 quatrième phase 7 millions 451 000. cinquième phase 3 205 000. kon Italie joxe nañu 72 549 500 Botanke kon bitim première phase 63 millions deuxième phase 50 millions troisième phase 66 millions quatrième phase 39 millions 5 euh, cinquième phase 18 millions Borbole. bolé bitim 239 millions 484 825. defe naa bu ñu ko déggee dinañ xam ne Hizbut Tarqiyyah liggéey bi maase na ñëpp a jàmbaane biir réew mi bàyyiwuñu ko bitim réew waaye bitim réew it bàyyiwuñu ko biir réew mi suñ la waxoon nag limub daare yi ña fa ne di nga xam ne du mbooloo mu baree koy def pas-pas rek moo koy def te itam ba bisub tey mosuñoo am sañ-sañu ne dañuy woo murit yëpp ñu dajale lii xalaatuñu ko murit bu jógal boppam ñëw indi joxe ci yaa koy xoolal sa bopp def ko waaye amuñu ñemewuñu di woo ket di ko liggéey loolu ndax sëriñ bi moo yëlifi murit yi moo leen sant moo moo leen ñemee sant ab liggéey ñun nag daf ñoo sant liggéey waaye Hizbut Tarqiyyah nañ koy liggéeyloo génnul Hizbut Tarqiyyah daf ko bañ ba dafa leeral bilan bi li ci waa Hizbut Tarqiyyah def ak li ci partenaires yi def ba ci suñuy mbokki bopp ak suñuy wëllëre ak suñuy xarit ku ci ne nangam euh, euh, euh, maa ko joxe

sëñ Atou dafa ko daan faral di wax sëñ sëñ Abdoulaat moo ñu dajale bis weeru koor la woon waaye bisu laylatu xadar la woon maa nga woon ca jataay bis boobu sëñ Mourou Mamou Niang moo ne ci ndeyjooram mu ne tey dama leen bëgg leeral seen liggéey bii mooy lan seen liggéey bii ngeen di liggéey dama bëgg kuy membre rek. bu xam ne armée sëñ tubaa ngi nii ay soldats yi sëñ tubaa ngi nii ku ci nekk na nga ko téeg sa fukki loxo damaa bëgg ngeen xam seen liggéey bi lan la mu ne seen liggéey bi ak dëgg la mu ne ak dëgg moom la yàlla yónni woon yonent yi kenn ku ne matt la la jox yónni la ci barab matt yooyu nag moo dajaloo woon doon aw say rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanu ko mu ne waaye fu mu ko sëppoon kenn ku ko xalaata yëkkati di ko yóbbu amul waaye sëñ Tuubaa ci boppam mi nga xam ne mooy asna xadim moo jël say wi yëkkati ko yóbbu ko mu ne sayu sëñ Tuubaa boobu nag ci nga am ak matt moom xaw ma lu muy waaye moom si emblaat moo ñu ko wax ci ak matt kon mattu mattu sëñ Tuubaa moo fi ne loolu mooy firi ba tey pàgguteefu sëñ Tuubaa ngeen kon ñun suñu yoon newu ci ku bank sa loxo liggéey bi day dem Yuusu Jóob ak dem ba xare ma fàtte xureeg ñëpp ci bokk yow yàlla nañu yàlla musal ci banque loxo ku sawar nag di dem day mel ni lu martalu da lay yóbbaale waaye ku ci doon dara man de ku ma jox kaamil ma teg ci waat ne kenn doonu ci dara Sèye Blane nee na ñett ngi nii bu ñu ma tàggoo ne dañoo bëgg a def liggéey bi dinaa leen bàyyi waaye duñ ko def ñu ne ko bu fekkee am na ku fekkoon jataay bi de war na maa jóg seere ma ay jataay bi may wax boobu keroog dañ koo yóbbul ay waxtaan yi mu def. ci tere yi dëkk bi li muy tere ci Touba ñu yóbbul ko bisub laylatu xadar mu yabal ñu soxna may indiwaat ñu fekkaat ko kër sëñ Touba gi mu nuy teral moo ñu jiite tàkkusaan keroog moom si yablaat mu ne ay borom xam-xam yu daje yaakaar na xam-xam rek la lu seen lim bare bare buñ dajee di ko jéem duñ ko def mu ne ñaareel bi mooy ay borom alal yu daje yaakaar ne alal la lii ay milliards ak yëpp bu mu tiital kenn pas-pas bi ne ci ñun moo seer moo am solo mais du xaalis ay nit a ngi koy dajale ci am po ay nit a ngi dajale lu ëpp lii ci am po waaye ñooñu li ñu mënta am mooy taqwallaahi fa la mbir mi ne seeb laa ne ay borom alal yu dajale seen alal yaakaar na mën nañoo def li ngeen di def bu ñu dikkee tàggu ma dinaa leen bàyyi waaye duñ ko def mu ne ñetteel mi nag mooy borom mbooloo defe ne mbooloo mu bari la mu ne mbooloo bi lu mu bari bari bari bari bu ñëwee tàgguma dinaa leen bàyyi waaye duñ ko def mu ne kon na ngeen xam ne li tax ngeen mën koo def mooy day ak dëgg te sëñ tubaa moo ko ci def muy matt moo xamante ne ci sayu sëñ tubaa la bokk matt mi maa leen xoolal sama bopp gis ne bu ngeen ko yoree da ngeen koy fonk bu guddee sax ku ko bëgg laal ngeen tëb fu ngeen nekk yéen a ngi ànd ak matt mi fonk ko lool mu ne looloo leen di may lépp lu ngeen di am falaa mën a yam li ci des du ma ko sañ a nettali waaye li am solo mooy fonkeel kooku muy fonkeelu matt gi mooy lan mooy boo doonee membre Hizbut Tarqiyyah dañ naan la yéenee soldaaru yoon xam nga soldaar li civil sañ sañu ko soldaar bu nekkee ci biir këram sax day xam ne soldaar romb membre Hizbut Tarqiyyah mu jox loxo jigéen waatal ci sëñ Tuubaa ne daf fay jóor waaye du membre Hizbut Tarqiyyah romb membre Hizbut muy dóori seen di takki seen ak naan day xaw ma nañ jox sanap nan la asan asanap waaw di ànd ak jigéen ñu may ko soxna képp mu ànd ak jigéen ji di photo ak nangam te mosoo koo gis ci ku sëñ seexal mosoo koo gis ci njabootam ngay royi tubaab te naan maam istafirlaa da nga fay jóor boo ko bàyyiwul la la fi dugal bu dee fi génne mën naa doon leneen yàlla na ci yàlla gis mu di jëfe ndigal diis ci moom day wax ñun sëñ bi la ñu gën a bëgg sëñ Muntaxa bu ñu ko teree woon ñu bàyyi ko tey la ñu gën a bëgg ci suñu xol ba mu takkook ñun bu nu ko sëñ bi bàyyiloo woon noppi nañ ci li ñu gën a bañ te ba nanguwuñu ko xool bu ñu ko sëñ bi digaloon day mel ni moo ñu dàqal ci àdduna mooy salabu lixtiyaar tarkul intiraat sëñ bi du wax ñu teg ci baat kon isbu tarxiyaa ngi nii ànd nag yomb na lool ci biir Hizbut Tarqiyyah toppante la rek boo nekkee ca ñay raxas ndab yi am na kilifa boo nekkee ca administration bi am nay kilifa boo nekkee ca finance am nay kilifa boo nekkee ca conservatoire am nay kilifa nañ toppante xam ne li ñuy bëgg ci lu baax nañ ko jaaree fañ ko war a jaar ànd ko nañ ko war a àndee di ko nos nañ ko war a nosee waaye ñu wóor ne yàlla amul xol waaye bu ñu boolee suñu xol mu def ko xolam kon loolu dama ko ci doon dolli di di bëgg ñu xam ne civil ak militaire bokkul militaire bu ñemee mbaxaneem mu téye ko nu ko neex amul membre is darx yàlla sol yére yoo xamante ne bu ku la xool xam ne yow dafa mel ni xamatoo yoon wi ni kooku des na kon yëf yi ñun sauvegarder alali sëñ Tuubaa mooy sunu mooy suñu mission nañ ci xeex biir kër ga ak bureau bi liggéeyukaay beeg fépp ci bokk yam weddiwu ma ne nit ki dina am ay contrainte sax ci wàllu liggéeyam mën na am ay contrainte ba sol loo xam ne sax gënalu ko ci contrainte liggéeyam waaye na ci moom waaye bu mu loo xam ne xolam moo ko bëgg na moytu su ko defee daruur moom ku ne day am daruur yooyu moom laa bëgg ñu xam ne sëñ Abdoulaye dafa daan wax ne li ngeen di joxe ni ngeen mel moo gën a moom ak moom moom ma ko gënal kon melokaan bi dafa am solo kon maa ngi jégalu defe naa sëñ maam Thierno laa bëgg jox kàddu gi euh, moom bu ñu seeree rek dafa mel ni sëñ taxaa seere nañu ndax moo ko doyloo dégg ko liggéey bi tey xam naa ne xolam set na ci moom waaw sëñ Abou mii tamit xam naa ne moom sëñ maam Thierno duñ ñaari jëmm benn jëmm lañu <laughs> jërëjëf.